tere ci wantaani saar wantaan madani kulli te jot madina rek ilaahu yom jooju walaayati sabe kon na suñu kulli yooyu aaya mu ngi ko leen moom kala xam suñ juróom la aw si suñ ñu si juróom daal rek aw sabana si juróom ñaar te sabana juróom ñaar si taxaar ñu si jaaree bismillah rahman rahim ya sabana ta am lan faani kooku lu ko wasat wàcc na ci xare badar bi am seen léegi ba nga xamee ne màng nañ màngee ca badar nag dañu leen di bëgg a jëlee màngee xale yu góor nga xam ne ñoo am doole ñoom ñoom ñoo bomba woon xeex ba mais ñu doon ci màngee ñoo ko moom kat mag ñu dañu ci daara te ñu ñoo ko jël mag ñu déet boole leen ñu ci ñun ñoo taxawoon ci seen gannaaw ñoo ko ñoo ko yoroon raay ñoo leen doon gënal moom yi rek su fekkoon ni daw ngeen dem da ngeen am bu ngeen dellu ba ngeen mën dina si jiw si dina ko doon doon yëf du baax xale yi dara ñun daal ñoom moom man ñu mel man di ci mot moo ngi ne ñu gën di leen bokk baaxat ka ci nag mooy lii di yëngu yàlla na yeesaloo na te danañu laaj la ani lan faa ci màngo yi rek ñu lay laaj màngo yi kana ko moom nga xale ko moom am man ñu ci leen bokk kul waxal ne alam saalum mànge ya billahi ñu ne yàlla war a fi yàlla ñu yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam yéen ñëpp na dégg ngeen ci mànge bi dara yàlla ko moom ak yéen ci yéen ñëpp te dem ci bopp ñoom ñëpp ñu dégg di seen kay te taxul aaragal la ñu yàlla wax bi te ngeen yéenam saa ko bàyyi nekkum diggante ngeen de da ngeen yéenam seen dëgg dëgg diggante ba soppante ba ñu ëccoo de dañ ko nangoo ba xam ne ñoom ñëpp naagu nañ nag naa dootuñ jaamu jëf boo bëggee naa leen ko tëddal naa leen ko tëddal ci wàllum wàllum maa xam ne du ñu tëddal maa ngi daal suñu tawee waaw te topp na laa alay rek doo ko yëngu dem ñu ci dum dem nag ñu ñu ñu ñu gëm ina man moom ñu na ko way gëm yéen way mata gëm wala ko ñu ñu yaa ko tëddal ci dégg laa ko tëddal yàlla ya jël ak ko ñu ñu wax ak yàlla way sa tëddal yàlla ngam jàng wax naa leen ci moom aya ko waxal qur'anum sa da ñu dem leen ni maanaam dëggante way tawakkal na dañu ba wax bu ci borom tane bu ñu ñaan ñu ñu taxawal place ji juróom léegi ci kanam bi ñu ko defee ñu naan sax maanaam dina wër sa ko déndé waaye te ñu ne la gaaw ñun ñoom ak ñoom ñu ngi ñëw di leen gëm xaqandanaa dëgg la dëgg la loolu ñu ngi leen dara jaaxul ak dara ñu ci àndana ñu dara ñu ko borom seen ba ma ko def ñu ndax ñu def suñu ko suñu ñu ngi ak ko dëgg ñu dem yàlla ngoot bu jàngee fi ñoom alquran ko ñu yàlla yokku te dañuy jibi jibi juróom te ñu ko defee te loolu yàlla jox ci wërsëg ñu ñu am daraja ñu tayar rek di koy jël yàlla ay nit ba nga nit waaxu jëkkam ci buntu aljanna si ku nekk na maa njëkk a dugg suñu def daal julli guddi yëpp la moo njëkk a dugg ñu def doon jaar béyu sayit loo ko suñu borom xam-xam la woon day jàng la xam-xam suñu di dimbale xalalam rek mu ne moo njëkk a dugg julli yàlla yabal jiw nañ ko dama xasee leen mu ne ma ne julli kër gi li tax nga ne yaa njëkk a dugg mu ne maa rawee ñun ñëpp ne la man moo ci sama nelaw dem di julli sama borom bu ma set mu ne ko boo déggee woon nañ julli julli dina may aljana mu ne ko ci borom xam-xam bi laa ko déggee woon. ñu ne ci affaire bi tax nga ne yaa njëkk a dugg mu ne maa fab sama jaasi di dégg nga yor ak sama ci yoonu yàlla ba ñàkk ci sama bakkan mu ne ko boo déggee woon nañ dina may aljana mu ne ko ci borom xam-xam bi mu ne di ñëw di jàngale waaye njëkk a dugg mu ne ko maa amoon sama xaral yu dund jafe lay joor ak càmmoñ mu ne ko ku la waxoon ne dina may aljanna mu ne borom xam-xam mu ne ko bon nag xanaa da ngeen bàyyi borom xam-xam moom mu njëkk a dugg bi nga xam ne yéen yëpp moo leen tegtal ñu leen doon def ñu ne nag nañ borom xam-xam bu njëkk a dugg borom xam-xam bi may itam dëgg dëgg soo gisal mën a jàngale xam-xam la di ko wattu di mën a toog di jàngale xam-xam li tax ñi baaxoon ci man li ma jot seen alal moo taxoon de kon nag may naa ci kuréel bi ñu alalam mu njëkk a dugg loolu la yàlla wax ne nga xam ne dañuy julli te sadaqa ci la nga xam ne yàlla jox la leen ko de boo dem julli yëpp am nañ dara jëriñ ko te seen borom waaye rawatina ñu dama axrajaka rabbuka min baytika bil haqq kooku lu ko wasal wàcc na ci xareet ba tax de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla yónnee Quraysh dañ ko weddi de ñu ko jëkk gëm yëpp Quraysh war nañ leen dàqal leen pexe lu nekk def leen ko loolu am ñu gàddaay dem ci Abas juróom fukki gàddaay nañ dem Abas fukki jigéen ñi ko wax doomu yonent bi rafet am dëkkatam ci ginnaaw Usmaan ibn Affaan gannaaw ga nag yàlla digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen mu gàddaay mu génn gàddaay dem Madina fekk na lansaar jaayante nañoo moom at mu jëkk juróom benn nit atam ñaareel fukki ñaar atam ñetteel juróom ñaar fukki ñett ne ko buñ la génne rek demal Madina mu génn gàddaay nag dem Madina ba mu ñëwee Madina nag sallallahu alayhi wa sallam doon xam xat ba ca atam ñaareel bi fekk na ñaan yàlla na Quraysh ne yàlla yàlla la def ci ñoom juróom yaari ati d'accord yi mel ni at ñeenti bëye Quraysh d'accord ak d'accord ak d'accord nag suuf ba nga xam ne lekk nañ seen ajo suuf ba lekk ay wetu juróom benn nit atam ñaareel fukk ak ñaar atam ñetteel juróom ñaar fukk ak ñett ne ko buñ la génnee rek jamal Medina mu génn gàddaay nag dem Medina ba mu ñëwee Medina nag sallallahu alayhi wa sallam dem xam xat ba ca atam ñaareel ma fekk na ñaan yàlla na Quraysh ne yàlla yàlla nga def ñoom juróom yaari ati bekkoor yu mel ni ati yoo su bëyee Quraysh bekkoor a bekkoor a bekkoor nag siis ba nga xam ne lekk nañ seen xaj yee siis ba lekk ay wefeñ siis ba ku taxaw naa saxat si fu mu jógee te fekk na saxat doxut seen sa diggante asamaan xiif a leen jàpp ba loolu xamee nag Quraysh dajale seen alal yëpp ak seen keer yi jox ko Abu Sufyaan ibn Harb na dem Saam jëndal leen mu dem Saam jënd njëg mu jeex bay wàññeeku ba muy wàññeeku yàlla jëf yonent nelaw géwént yàlla xamal ko ne Abu Sufyaan muy wàññeeku mbëgg mi Abu Jahl dana takk xare ñoom gàttandu ci njëg mi ñaari mbooloo yooyu yàlla jox ko rek ci benn rek da nga xare ñoom da nga leen gañ yonent daal di xew diggante yonent nag mooy Yuda mu xew wax ko ci dina awukat bu daa xareel ji moom yonent dafay xebal ay ndaw ñu di ko rejul barab ya mooy xareel ji ba mën a xam ne muy tërale xareel bii nag moo war jéere moom togg ci dina awukat xalifaam ñu dem dema dema dema dema dem baa gi ci benn teen ñu taxaw yonent waxul leen dara laaju leen dara fa taxawal gineewu rek di déglu dégg ndaw su wax ne waaye lebal ma waaye soo lëgee Abu Sufyaan ci teen bii la yendu si danaa ci wëggaan fay la de yonent bi ne si dinaa wookat dégg nga mu ne waaw mu dàq gëléemam di dellu Medina waa teen ba ne eey daf na gëléem bi de kan ngeen fu ngeen bàyyi ko yonent ne min maa ne ñu ngi bàyyi ko ci maa am na jiit yaaram yi tudd maaw waaye fekk moom ndoxam man yi mi nga xam ne doomu aadama ju ne ci la jógee loolu la namm naka lay wéy rek abis lu yàgg laaj si ne lu ngeen dégg ci àddina si ñu ne ko ah dégg nañ xabaar de laan dégg nañ ne Abi Sufyaan ma nga jóge saam ak ndëggam ñooñ Makka te Muhammad ñu ngi yëngatu ci Yasriba pour bëgg a nangu ci njëgg moomu Abi Sufyaan ne daal di wàññeeku daal di dem xebal ay ndawam ne leen daal di xebal dam-dam o sigi yow yow am na sëgg abo dam-dam demal léegi ca Makka ne leen yonent bi nangu na njëgg mi luñ gaaw gaaw rek fekk njëgg mi raw dam-dam ñëw ba Makka daal di xaaju waa sabaxa Quraysh yëpp ne dëmb looy wax mu ne li may wax du ma ko wax saa du ma ca Kaaba ga ba nga xamee ne dem na ba ca Kaaba ga mu ne Muhammad dog na njëgguma ngeen gaawul rek njëgam Quraysh ma dina raw Abu Sufyaan daal ne kuy góor ci Makka rek la génn ñu daal di waaj génn ci junne junne yoo xam ne am nañ juróom-ñeenti téeméeri fas am nañ juróom-ñaar fukki gëléem juróom-ñaar téeméeri gëléem am nañ ay jaasi yu doon bay ay gànnaay yëpp am nañ ko fukki kilifa ak ñaar a ngi ci yoo xam ne ñëpp risaas lañ ñoo gàddu dundal xale ba di ko mo di ko moomante bu tawee kii dundal leen boo léegi kaa dundal leen Abu Jahl muy saam Ati ibnu Waa'il Utbatu ah Waliid ibnu Utbata ak taybatu Abbas ibn Abdul Muttalib Nadir ibn Haris Suhayl ibn Amrin Nubayh Munabbihu Abul Bakhtari Ubay ibn Khalaf Umayya ibn Khalaf ñu ñëpp ay buur lañ yoo xam ne ci na la ma xam di jaar ñu ngi doon xamante xare bi bët bu fees ci moome da nga rey fukki gëléem mooy mooy loolu lu ba yonent sallallahu alayhi wa sallam jeddi Madina Abu Sufyaan nag daal di topp kàr ga rek ba tamit ko daal di daw ak njëgg ma raw àgg Makka yonent ñëw dajale waa Madina muhaajir naa leen saar ne leen léegi yàlla dig na ma kenn ci ñaari mbooloo yi njëgg mi walla walla gi lu ngeen wax fa awee na ko njëgg mi rek njëgg mi nga xam ne amuñu gànnaay duñ ci xeexante te ñoo xam ne xalal ji ñooñu daal na nga ñaan sa borom bu joxe mbir mi yàlla moom fekk yàlla bëggul loolu moom lay wax bi léegi wa tawa doona naqaaru daati sew ko ci takkuru lakum yonent ne leen njëkk moom am raw na wala gee fi daj yàlla dig na ma ci kenn ci mbooloo yi ñaar kenn ci ñaari mbooloo yi benn lu ngeen wax lu ngeen wax njëkk baat ne ko amul wax loo wax rek ka nit ñi ba barkul xamar ñu dina amar wax loolu mun naa lu ngeen wax lu ngeen wax saa bi ma ba dafa jóg ne ko fa mel ni ñun lan saar nga bëgg ñu tontu mu ne yéen fii ci daa bëgg ngeen tontu ñu ne ko ka nit ñi ba barkul xamar soo ñu jooyee géej gi danañ ko xuus ñun duñ wax la bani Israël waxoon Muusa demal xam ak sa borom ñun ñoo laaj te fii la ñuy toog ñun duñ wax loolu demal yaa ngi xam ak sa borom ñun ñu ngi ànd ak yéen fu ngeen di xeex rek ñu ngi xeex ànd ak yéen. ñeneen dafa ko kontaan nag sallallahu alayhi wa sallam daal di takk xareem nag génn ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci muhaajiriin ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ci lansaar juróom-ñaar jaasi rek lañu am ci gànnaay yaari fas rek ca nekk fas bi gën a àll yoon nag daal ñu ca gën a bëri dañoo rafetlu dañoo xiif bañ ñëwee ba ca Badar yonent daal di sampale ba mu sampalee ñu mbaaral ko Sidina Abubakar moomee keroog pour wattu ko yonent sallallahu alayhi wa sallam yeneen fii la Abu Jahl di daanu ëllëg fii lay dee ak batu dana dee fii tey batu wan nit juróom ñaar fukki ñu rey ci sangi Makka yëpp ci Badar yonent wane na ko ci ne fa muy dee ba ñuy sambale ab xare ba déet si nag terewut ma ngay ñaan yàlla rek jaaw yàlla bu xam yàlla du wóolu yàlla ndimbal loo ma mës a dël soxla naa ko jox ma ko tey yow yàlla soo bëggee buñ la jaamooti ci kaw suuf gannaaw tey nañ xalaat ku des yi ànd ak man sidina Abubakar tey ko ne ko yonent bi doy na la li ngay leen tudd sa borom doy na la sa borom dina la dimbale yonent daal di mu sallallahu alayhi wa sallam ne ko wax nga dëgg Jibril la nga nare mi ngi ngëp ci gori sasam mu nga naa xay soom faq dumi xay soom jiitu jiital xare bi xay soom mooy tudd fa fi Jibril ma nga ànd ak ñaari junne moom Jibril ah mi kaay la nga ma nga ngëp ci gori sasam ma nga ànd ak junne Israafil la nga ma nga ngëp ci gori sasam ma nga ànd ak junne malakul mawte nga mu nga ànd mu ngëpp googi sasam mu nga ànd ak jinne juróomi jinne malaaka ñoo wàcc ci xare balar ñu dimbali ci yonent bi kay di jëkk ñëpp dégg ngeen ni ñeen xale gi dem bi ñu saaru dara mel nam jibli ne ñëw xaaju rek ñëpp dee yonent am fooraay bu day juróomi jinne malaaka ñëw di ànd ak moom di xare ji te jibli rek bu ne woon ëpp addina yëpp bu ko neexee ñu dee ba ñëwee ba sampale rek yàlla daal dimbale yonent bi àllak saa rek rey nañ juróom-ñaar fukk ci ñoom jàpp juróom-ñaar fukk ci ñoom daal di ñibbi si Medina te dara jotu leen de fekk na bi yonent yi julli nag saaba yi jàpp benn sàmm bu bokk ca sàmmi xéefare mu ñëw ñu naa ko waaw laa xéefar yi ñëw xare feeg ñun bëri nañ mu ne ah bëri nañ de ñu dóor ko mu ne bëriwuñ ñu bàyyi ko ba mu yàgg ñu ne ko wax ñu dëgg rek nag ah mu ne bari nañ ko dee ñu dóor mu ne waaye bariwuñ ñu bàyyi ko wax ñu dëgg mu ne bari nañ yonent fëgg a sonnoon ne leen yéen a ngi laaj waa ji fi leen waxee dëgg ngeen dóor ko fi leen waxee du dëgg ngeen bàyyi ko ne ko ñaata gëléem lañu rey bés mu ne ko fukki gëléem yonent ne leen junne lañ ne leen ndax Abu Jahl ñuy saam ñëw na ñu ne waaw Utba ñëw na ñu ne waaw Saybatu ñëw na ñu ne waaw Walid ibn Utba ñëw na waaw Ubay ibn Xalaf ñëw na ba Umayya ibn Xalaf ñëw na Abul Busri Suhayl ibn Amr Abbaas ibn Abdul Muttalib yéen ne haati makkatu ramatkum bi abdaatika bidaa makka sànni na leen doge ci resam yëpp kenn desut ci makka waaye daal jëlewuñ ca aw dikkin de moom la buur bi wax fii nag ci séddaleeg maa ngi ne mbit mi day dem ak ci biir seen ak moom kamaaxal dëkk naka ba génnee la rabbu ka borom sa min day ci doon nga tukkee ci madina sa bi laa ko ci dëgg rek ni ngeen tuddee maa ngi ngeen doon xëccoo yàlla jël ko mi ngi mel ni na ngeen tuddee woon ba yonent yi génn Medina di jëm Badar rek way na fa rek naka kuréel yàlla moom ñu way gëm ñu la kaari wala way sit lañ ko de booba ñu bëri ñu julli ñi sit nañ génn googa jëm ci donc kooku Abu Jahl ibn Hisam Abu Sufyan lañ bëggoon a daje de di jaajëfal nag danañu xulóog yow bi laa ko jëkkale ba ba damaa saba yéen a gannaaw bu jugee ñu leen kaa na maa yi saxoon daanaka def na màngale ni lan moom fi ñu jëm ci dee moom te ñoom yan tuloon danañu janoog moom de booba ñu ngi mel ni nekkaay dee rek was pour jàngatal isinade kouru laaw ba dina dëra leen yàlla ida fa tay ni kenn ci ñaari kuré ñi de ba leen yàlla digée ne da ngeen xam njëgg mi wala wala gi rek annakum na annahaa naka moom lakum aji naka la ñuel leen wa tawa doona te da ngeen mébét yéen a naqaaro daa di sewkati naka budul borom gànnaaw yatak moom dina mu nekk lakum ñeel leen rek yéen nag booba ñu gën a néew gën a néew lim daane mang ga ñooñu ngeen bëggoon a daje de muy abi sufyaan de wa yuridu laaw tey na ma yàlla ñu abu dëgg alaaka dañu bi kalimaati jibaatam nga wa yaqtaan tam dog daa bi rek na mu ñëw way weddi ja yàlla nag booba na mu ak mang booba mu nga bëgg dëggal dëgg yàq baatil xalak yéefar ya de li yéefar na mu dëggal alaaka dëgg nga wuñ si la tam gotti al baatila kéefar wala kariya ñee sib na ko al mujrim wona way bokkaale ña de jàngatal tastaxisoona bala ngeen xat li ko rabbakum borom seen parce que jaabatam nangu lakum ñeel leen ani naka man lu ñu dugg ma aji tëbb laa leen bi altin ci junne minal malaayika di malaaka murtasina di way toftaloo de ba ngeen di ñaan yàlla dimbale leen mooy ba yonente ñaan yàlla na leen danaa leen dimbale ci junne malaaka yonente leen dégg leen làqu leen yàlla dimbale ci junne malaaka da dana doy ñu ne waaw waaw mu ne su leen joxee ñetti junne malaaka ñu ne baax na mu ne yàlla dana leen jox juróomi junne malaayika de loolu la ndimbala ndimbal la mu ci doon naka mu dalee ca saaru Ali Imran wa ma ja'alahu laaw defut ko yàlla ilaa busraa la rek dégal wala sat may na ak ngir na dal yi ci moom loolu ma yokkal seen wa ma nasru waaye di ndimbali laa ngi leen di laay la rek dikk na fa yàlla de dina laa naka yàlla asiisun aji not la ci guram ak mu aji xare na mu ci def ci moom uskum jàngatal uswaxtikum ba gën a mu leen nuancé nga mentu aman sa ngir ko dëre mi nu guddi ko moom de bañ sampale xare ba rek yàlla sànni ay nelaw ca waaw julli ña ku nekk di gëmmentu waaw fam-fam taxaw de ba ñu fere gisee nag loolu xam ne ñoom ku ne xalaat de ñoom ñi gëmmentu ñu ne ñi du ñu de daal di daw wala na sëru tam wàcce aleykum seen ngi na sama bi ko jaa sama maana taw ñu soy rak ngir na mu laaba leen diñ ci moom iblis ñëw jax-jaxal leen ne leen yéen a ngi ci yaamu leen ndox mu ngeen naan waaw seen janabe yaamu leen ndox mu ngeen ko sangoo Abu Jaal moo nekk ca teen ba waaw te moo nekk ca barab kekk la nga xam ne dawal ak xàkkal yomb na fa yéen nag yéen a ngi ci kanu gii ba noppi amu leen ndox xam ngeen nekk leen ci dëgg de yàlla daal dina witt taw taw bee wala ngaan taw bu tawee ba wala ngaan xam nga ne suuf si waaw suuf si dëgër dafay soppeeku ba toxo suuf si gannut dafay soppeeku nag dëgër gën loolu yàlla jëkk a dimbale ca waaw xare Badar de ñu daal di am ndox nag mën a sangu waaw waaw bëgg seen i daaba laab ci seen i janaba wuy si ba tam dinaan wali leen duñ sa seytaane jax jaxali seytaane wali yar bi ta angi na mu takk alaa xulóobi ci ci xorteen wuy sa bi da tam saxal bii jëm ndax daama dëggee de te yàlla saxal waaw seen i dëggu waaw ci gëm yàlla de ci yooyu ba dana wuyu rabbu ko borom sa ilal malaayika di jëm ci malaaka ya andi naka man maa ak maa ji nekk laa ca ànd ak yéen de ko sa bitoo saxal leen de sina ñaaño amano gëm nañu soo xir xam na sànni su xulóobi de sina ci xori ñaaño tafarora dinañu ubay ragal de fabri boo dóor leen faw alaa naake laa naaqi ca kaw bopp ya na ngeen dóor yéefar ya su seen seen i baat ndax bopp bu daggee rek kooku boobu borom dootu mën a dundale wax bi boo dóor leen ñun ñoom ku la baaxee képp ci nag mu la de na ngeen leen dóor ci loxo dagg seen baaraamee rek noonu la leen yàlla doon jàngale xare ba dagg leen caw leen ci baat bu bopp ba daggee rek kooku dee na wala nga caw ci loxo bu baaraam ya daggee kooku dootu mën a ngëb gànnaay di xare rek gaanoom ci saab si naka ñoom saalika loolu gaanoom ci saab si naka ñoom saako wuute nañu laa yàlla war a suloo ak yonentam boobu ni saako wuute nañu laa yàlla war a suloo ak yonentam seen laa naka yàlla dina xam sa dimbu ba lamu de zaalikum loole seen ba soo ko moseen ko waa na kaafir na naka xeefar ya waa na nit keef na naka aji nekk la ñeel way weddi ya ca alaaxira asaaba naari mbugalam safara de loolu nag masaali rek la waaye safara ngeen di nekk de yaa ayyuhal lazina aamanu yéen gaa ñi gëm alquran idaa laqiitum dem daje ngeen allazina ñaaña kafaroo rek dinañu saxfan nit ñi tañam xare wala tuwallohum bu leen méngale leen la baaray gannaawam bit mu ngeen di way daw de bu man walliim bu méngale na mu leen yow ma suñu desab keroog du buroo gannaawam ilaa mutaharrifan ndara aji kapp di xitaalin ci xare aw muta ilaa mutaharrifan ndara aji xarañe di xitaalin ci xare aw mutahayyisan ci mooy aji kapp ilaa beatin jëm ci mbooloo faqad baa yàlla na mu ba xabasin ci mer mais laay mu dugg fa yàlla de ma waaw sax waayam jaanum jaanama boobu sa bon na almasira sa luwaay ba ngeen jaanama de walam taqtuluhum walakin laa qatalahum wàcc na ca saaba ya bañ ñibbitee nag ku nekk naa maaray diw maaray diw maaray diw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko de sama jiba suuf ba ma sànni nag nam dem nam demee mbir mi buur ne falam taqtuluhum rey leen leen ja Badar ci seen kattan ak bopp walakin laa lu fi nekk yàlla qatalahum rey na mu leen yéen ñëpp ku ne naa maaray diw maaray diw rey leen kan yàlla rey ña dee ja Badar rek wa maa ramayta sànniw rey yonent bi itam isra may ta ba nga sànni walakin laa lu fi nekk yàlla rama sànni na mu de yow bay yow yonent itam seen xam ba mu fees ak suuf rek la jàpp sànni ko xare ba ñëpp dàqaleen mu ne ko loolu lu yow de man yàlla maa sànni ba nga sànni de julli yi bañ rayee julli julli ñoom rey kenn man yàlla maa rey yonent bi ba mu sànni du moom moo sànni de yàlla sànni de xam nga ne teqal doomu aadama ci suuf rek mën da dàqab xare de yàlla am na ci loolu de lii wute la ñaari maqaama yaa ngi nag julli ñi ñoom defuñ dara yàlla rek a def yonent bi moom yàlla saxal na defam ji ba noppi ne yàllaa def nga xam ne le diw ne yonent def waaye li yonent bi def yàllaa ko def de wala yu bi ak ngir na mu nattu al mu ne way gëm ne minu tukke ji moom balaa am ak nattu xasan bu dee aji rafete mooy màgg ga dina laa naka yàlla samiyoon aji dégg la mu seeni wax alimu aji xam la mu seeni wax zalikum boobu la nattu feen aji dëggu la waa na laa naka yàlla mu wahinun aji doxadal la mu kay dal kaafirina pexem way weddi ña de in tastaftihu ndem hubbulu ngeen hun faqad jaakum dikk na alfatahu bi atte de fekk na Abu Jahl bañ ne ëllëg ñu daje daf ne yow yàlla maa ngi lay ñaan man ak Muhammad ku ci dog ak bokk su dikkee li ñu xamul na nga ko xalaat ëllëg de te ëllëg sa moom moo jëkka dee yàlla ne su fekkee ngeen doon laaj xatte ku ci ne ci dëgg xatte bi feeñ na de Abu Jahl lañ rey de yonent bi moom moom ñamaane doon yàlla musal la leen wayin tan taw ndem day ngeen foofu moom xaar moo gën nakum ñaadeel su ngeen dayee nag bañ a tey pexe jëmale ci yonent bi looloo gën ci yéen wayin taxoodoo ndem jàllu ngeen na nu dellu de walam tux ni ya jangeen sis an ko ci yéen ki atugum mbooloo seen seen dara walaw kasura dié bari na mu waana laag naka yàlla maa mu ni naa ji nekk la mu ànd ak way gëm yàlla de yaa yoo ale si na amana yéen gaa ñu gëm alquran apion topp leen laa ala wa rasulahu topp leen yonentam bi wala tawalaw bu leen dëdd xanum xanum walis ko waantum te yéen tos moona da ngeen dégg alquran rek wala takunu bu leen nekk kale si na di kam ñaa nga xaaloo wax nañu sami naa dégg nañu moom te ñoom laayat mun a dégg suñu lëkkara dowa dina ko kéet ji aji kët enda laay fa yàlla pour mu woy tax yaa al buk mu ngi di woy loolu alla si na ñaaña laa xelona xelu siñu rek téefar dafa am xel moo tax ñu tëx lu mënuñoo dégg alquran wala wax ni ma laa doon nga xamoon na yàlla fii ci ñoom xaaran aw xiw laa as maamam kon tey mu déggloo leen de ndax am su yàlla na moon ci ñoom aw xiw bon mu déggloo leen alquran wala as maamam waaye doon te déggloo lewu leen ci na tale gu yàqu te fekk ñu ñëw ci ñoom waaye la tawalaw ko tey ñu dëdd wum te ñoom moo di doon a way dëdd lañu de su fekkoon ni dégg nañu alquran ci seen mer wii ñu nekk itam booy dañ jox yàlla gannaaw rek waaye duñ nangu de yàlla dafa wax ne su xamoon ci ñoom aw xiw déggloo leen waaye xamu ci ñoom aw xiw maanaam xiw nekku ci ñoom xam nga ne yàlla lu am xam na ko lu mu xamul rek amut xamu ci ñoom aw xiw lu mu tekki mooy xiw nekku ci ñoom bi nga xamee ne xiw nekku ci ñoom nag su leen yàlla dégglu woon alxuraan sax booy ñu dëdd de duñ ko topp de laay ji lu mu wane laay ji moo la wan ne yàlla xam na lu am ak lu ñàkk xam ak ñàkk yépp yàlla xam na ko mbindeef yu xam ak mbindeef yi xamul yëpp yàlla xam na leen li xamul ku xamoon na muy mel ak na muy doxee loolu yàlla xam na ko xam-xamam mbindeef mi ngi am ci xam ci xam li xam yàlla xam na li xam xam na li xamut li xamut xam na biit ba ba xam ku xamoon na muy doxee feeñal na ko ci weneen saar naafeq yee na nañ lay nuxrijkum la naxrijanna maakum wala nuqi'u fikum ahadan abadan wa in qutitum la nansurannakum yàlla ne lay nuxrijoo laa yaxrijoona maahum wala in qutiloo laa yansuroonahum wala in nasarohum la yuwalluunna dubaara naafeq yi suñ génnee yahuud yi liñ wax ne suñ leen génnee ëllëg daañ leen dimbale waxuñ dëgg duñ leen génnee duñ leen dimbale xam nga yàlla wax na xaar li xamagut duñ leen dimbale ndimbal nga xamut ak ñàkk la waaye suñ leen dimbale woon dañuy daw loolu moo la xamal ne yàlla li xam xam na ko li xamut xam na ko li xamut soo xamoon la ca xew xam na ñii yàlla xamut ñoom aw yi moo tax déggloowu leen alxuraan xam nga déggloowu leen alxuraan kon waaye su leen déggloowoon alxuraan itam la ca xew mooy lan mooy booy daañ dëddëde yaa ayyuhallaziina aamanu yéen gaañu gëm alxuraan istajibu hooyu leen lillaahi ci yàlla war a tukkali rasuuli ak ci yonent bi hooyu leen yàlla te hooyu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam idaa daakum dem wootamu leen limaa yuhyiikum ci la dana mu dundal leen wala moo xam leen ana laa naka yàlla yowoolu dina mu diggale baynal mari diggante ñu waxante ak xorom waa ndaw naka moom tusoroon def na ko nga dee ngeen jëm fa moom def wattaqoo wattadiku leen fitnatan fitna laa tusiibanna jot ci muli si na ñaaña sala moo tooñ nañu minkum ci yéen xaasatan danaa jag leen soog jagle de wattu leen fitna joo xam ne su ñëwee du am si ña nga xam ne ñoom mayoon def kana ñëpp lay matale wala moo xam leen ana laa naka yàlla tasbina xaali kat ci mbugal la mu de waskuroo fat li ko leen itam tum bayeen xalilan way néew ngeen mustadafoo na ñuy doxal ngeen si lan ci suuf si Makka taxaafoo na da ngeen ragal an yataxattafa kum bu fëkkat dee naa sun ñi faawaakum tam tappaleen ngeen jëm Madina wa ayyadakum tam dara leen ci Madina dina sëriñ ci ndimbalam war a saxakum tam warsagal leen mina tayyibaati ay màng laalakum boo yeen taskuroo ngeen sant xéewlam de yaa ayyuhal lazina aamanu laa taxunu laa wa rasuula kooku wàcc na ci Abi Lubaabata Marwaan ibn Abdul Munzir yonent daf ko yónni woon ca Bani Qurayza ndax ñu wàcc ci àtteem ñu ne ko ñu ngi lay gis yow mi xam yonent bi luy àtteem mu ne leen nii wax leen ne àtte bi yonent mooy rendi rek ndax njabootam a nga fa woon ak alalam ah mu ne ba may àggale sama kaddu ga rek xam naa ci sama bopp ne murub naa yàlla ak ab yonentam ba mu ñëwee nag mu daal di xeew boppam ci kenn ca Kaaba ga cekkanu ci jàkka yonent ba ca Madina ne bu ko kenn xewi lu may yonent ndax xam nga ne yonent du ko xewi lu may gannaaw bu ko yàlla nangu leen tuur moom la buur di wax yaa yoo ne si naa woon yéen gaañu dama alquran laa taxoonoo bu leen xurub laa yàlla war a soxla ak yonent bi de wa taxoonoo bu leen xurub amaanaatikum ay kóllëre seen wa antum te yéen taalamuuna da ngeen xam de wala moo xam leen andamaa amwaalukum naka yaaral seen wa awlaadukum ak ci doom seen fitnatun nattu la de bu leen di fekk wala àllaaxira wa ana laa naka yàlla inda wa aji naka la fa moom ajrun yoor aziimun bu dee aji mag yaa ayyuhal lazina aamanoo ba tey wàcc na ci Abu Lubaabata yaa ayyuhal lazina aamanoo yéen gaañu gamal Alxuraan yéen tattaquuna mbagam ngeen laa yàlla yéegal mu def lakum ñe dem furqaanan aji fasale diggante seen nag ak diggante la ngeen ragal de ba ngeen mucc booy topp tam far an ko mooy seen te yaatu ko ma ñaate seen da ko tam baal la ko ñu leen seen bakkat wala wala ko ko di mooy borom nga delu ala ki mu ya ji ma de ci am ko du kan na ko waro ni di tooga ko ko lu ko wasa wàcc na ca ba nga xamee ne Quraysh dañoo daje ca daaru na do diitoo ci ndigam yonent de nañu def baax ak yonent bi daal ñu ne nañ ko joñ fekk ko ci gëlëm ñu ne nañ ko tëj kaso di ko dóor ba muy dee waaw ñu ne nañ ko rey rey ni genn waay nguur na isiyam kuru ba dana fexe di ko ci yow ana si na ñaa ñekk foro wet nañu te booba ña nga daje ca daaru nat wa diit bi doofa ngir nañu jañ la tëj la fekk laa gëlëm dàq la mu dem ci àll dàq mu dem ci àll fekk lañu aw yàquloo ko i nga ñu rey la rey ni genn waay aw yox rijoo ko i nga ñu génne la makka wayam kuru na dañuy fexe wayam kuru laa tay demee yàlla tay dogal yàlla walaaw yàlla xaarul maaki na mooy aji gën mooy aji xam aji xame way ka xeere way ka tullee ba dem def na jàngaa den ci ayat na alquran sunu xaaroo ñu wax ne fa tamit naa dégg nanu law na saa doon ko soobo nanu loqul naa kon den wax mis la ba kem di lee na bi ma ari na abdul musali ba ko doon wax ne muhammad waxu dara lu may nari maam jëkk yi rek naa leen indi lu mel noonu dem jënd ka di la wa dim naag nga alfure rek dama lay dim téere jaaxaale di ko xabaar Quraysh na leen bii rek la Muhammad di wax saaba mi ina sa dégg léegi daa saa la wane mbala naari maam jëkkee way xaaroo ak bañu waxee allahumma yow yàlla in kaana dem nekk na asa ji la alquran di jàng Muhammad huwa ma waqa mooy aji dëggu ñu ne di ko tukki fi yow faam ti yàlla nga tawaale naa ci sunu jaar tam doj mu ne sama ci jaar sama an aw it naa it di kenn bi ansaamin jumbuwal ali mu daa ji métti mu ne dem alquran ji dëgg la yàlla na yàlla taw ci ñoomi doj ñu fa ñàkkam kan dem alquran ji dëgg la kay yow waroon na jawaab bi mooy ndem dëgg la yàlla nañ ko gëm buur ne wa maa kaana laaw waaye nekkul yàlla ni yoxanti ba mu digg ba leen wa anta ta yow fii aji nekk nga ci ñoom de mbugal mi wàcc ci ñoom na bàyyi ko asamaan kooku du xam ndax yonentu baa ngi fee ba maa kaana laaw nekkul yàlla mu wax di ba mu di aji bugal seen moom te ñoom yastaxfiruuna danañu baru de yàlla du leen bugal it de ñu ngi wax astaxfirullah moo tax yaa yonentu ne yàlla jox na ma yaari kóllëre pour sama xeet seen maa ngi fi nekk yàlla du leen xalak su ma fi jógee te ñuy balu yàlla yàlla du leen xalak mu ne su ma dee su ma dee itam astaxfirullah moom fi lay def de wa maa lahum an lam ñoom allah yoo xam si moom daa ma bugal si leen yàlla nag ci jaasi ko di nga xamee ne yow nañu bugal te yàlla du leen bugal mu ngi yonentu bi nag am na lu tawee nag yàlla xalak leen ca badar wom ñoom yëpp duna danañu tag nit ña anil masjidi walil jàkka ja alxaraami ca li ñuy xormaal de wa ma kaanu nekk ñu awliyaa di wali yoom de di awliyaa di di wali yoom di leen mu taxoon na rek way ragal ñu yàlla wala ci na lu fi nekk ak soroom gën ñu bari seen laara mun a xamuñu de wa ma kaanu nekk salaatum julli seen dul bayti fa kaaba ga ilaa mu kaan na rey walit wa tasiyatu nag sàcc de loolu rek lañ fa doon jaamu yàlla te soo ko xaraf leen alaataaba mos leen bor alaataaba mbugal ma ci baatar di an kurkum ci saa su la ngeen nekkoon kat roona doon weddi de um na lu fi nag a ñaaw nekk fa doon weddi nañu ñun fekkoon na danañu dundee am waalam ay jubteen ci xare ak yonent bi yeesu doonge nañ kat ñu ñaan tamit laay wala ci ne yàlla dafa yéen fekkoon a xam nañoo dundee xaaral ya su ma takkoon topp dana mu nekk xasratan ñu rëcc alayhim ci ñoom su ma yoxla boon a topp def na not leen de nga li fi na ñaanee ko farowet nañu yokkaroon def na ko nga leen daal jaanama ñu jëm jaanama de li am isa laaw ngir na safale yàlla alxabisa xéefar ba mu ne tay bi ci aji gëm yàlla de waaye ñe ratam def alxabisa xéefar ba baax daw leen nam ala baax ñu ci kaw leen na fayet ku ma woo tam tegale ko jameen bu ñu boole fay yàlla tam def ko fi jaanama ci jaanama de wulaay ko ñoo la gaay ñoom xaalis na ñoo di koy perte de pour waxal di leen seen ñaan ñaan ko farowet nañu ni ki abi sufyaan ak saabaam ñu ñam taw ndem day nañu walif xare yonent bi yàqal baal yàlla loo mu ñee leen maa xasala fa la jiitoon na de way ñaaw doon dem jàll nañu faqat naqal la yoonu sunna la walina baaxal yàlla ak way jëkk ña de waxaat lu xare leen ak ñoom ataala ka kona ba defu fekk fitnes na ak bokkaale waaye kon te nekk diinu diina ku loo léppam li laay ñeel yàlla bayin taaw ngem daay nañu fay na laa naka yàlla bes dina ajo xam ne ñu xamal nañ ko la dinañ def ko de bayin tawalaw dem tëdd nañu faala moo xam leen ana laa naka yàlla mawlaa ko mu aji dimbale seen neema baax na al mawlaa aji dimbale ja yàlla la ko neema baax na si aji dimbale ja de wala moo xam leen ana maa xalimtum naka lu ngeen màng ci tukkee ci xéefar yi min te in ci laala moom xalal la fa ana li laay naka aji nekk la ñaar yàlla su mu solo juróomeelam de ñu ngi soog a seetlee màngee nag gannaaw bu mu ko nangoo ba xam ne seen xol dal na ci loolu léegi ku mu tuddee yàlla moom ak yonent bi boo di def ko biyaag borom jege ñaare wala taama ci bidim wal masakin ci miskin wa bi sabirin musaafir murid jullit de ñooñu ñoom moom ku musu bi in kuntum dem nekk ngeen amoon pour ngëm ngeen bilaay ci yàlla wa ma anzalna lanu wasal ala abdina ci jaam mu kii Muhammad yawmal furqaan ci def ko fa diggante dëgg ak nar mooy badar yawmal taqa def la daje al jamaan yaari mbooloo ya mbooloo jullit ma mbooloo mu yëfal wala yàlla qadiru ajaat mu wala kulli seen ci lépp la de jàngatal is antum ba yéen bi xam wati aji nekk ngeen ci burwa dunya wa de aji jege medina moom ñoom di doon wati aji nekk lañ ci tund ba alxusa wa de aji sori de warak bu gawar ga asfala aji nekk lañ ci gën gëstu seen ñu ci yéen wala to atum gon de doon teewal ngeen ndax fala kum kon tan ngeen de fi ñaar ci dëlante wala ci lu fi nekk yàlla boole na leen ci lu dëlante yàq di yàlla aw ngir na atta yàlla am ran bi kaana moom musu moo dañ ma xoolan luñ def de li yàlla ko ngir na xéefar man halaka te xéefar na mu am bañ na ci na ànd ak lay waaye ay gëm man ay yëpp gëm na mu am bañ na ci na ànd ak ànd ak aw lay de waa na laa way na laa naka yàlla sama aji dégg la mu alim aji xam na mu de jàngatal isiri kaw mu laaw ba dina gëwal loo leen yàlla su mën naa nekkee ci nelaw sax xale la ñu di way néew de loolu di gis xéefar yi màkkaay ñu ñëw ci xare ba ñu tuuti loo am dañ naa juróom-ñaar fukk lañ mbokk nag les saxaaba yi nag ñu kontaan lool wala waraaka wum doon te jël loolu mu la leen kasi ran ñu aji bëri dafa si tum kontaan ñu ragal de ñu fekkoon daf leen jigéen ñu bëri kon bu ko waxee ñu ragal de waaye nag leen man ñu aji biir ñu leen wala su naa saatum sa koppee ñeen xëccoo di dem di ci nit ñi wala ñu fëree gis lañ waaye saaba yaa leen di seen naa ñu dee tey rek juróom-ñaar fukki rek lañ wala téeméer wala xalilukum sa muy néewal leen ci ay unikum ci ay unikum seen saa saaba yi itam yàlla nii woon leen ci bët yi ñu defaree ba ñu naan ñu ne ñu tuut lañ ñu yàq yàlla awa ñu naan yàlla am na ci daanaka mos wala ñu ko lañ ñu def de yàlla amoon na ko ba pare ku ne bu ñu def leen suufam de ñu ne ñaareel ko ci ñu soog a def la muy def de te ku jox leen nag delloo lu wóorul liggéey yàlla ay jëm ci yàlla de yaa ayyuha alladhina amanu yéen ngaa ngi jëmal Qur'an ñu daal wax dëgg yàlla daje ngeen seetlu mbooloo ñu ngi féefar parce que soxla leen parce que laa leen yàlla kese ren ci dugub yaa ngi bëri daa daa suñu borom ci yoon la ngeen def waati ma topp leen laa yàlla waati ma bañante waati ma topp leen laa yàlla wa rasulahu ak yonentam wala tanaasaxoo bu leen xëccoo fa tëkkaloo bon dañaan ragal wata sa wata dem riiw kum kattan seen riiw kum yuur seen wat juróom muñ leen ina laa naka yàlla ma saawir naa ji nekk la ànd ak way muñ de ko la yàlla xamale yonent nañu xare wala takunu bu leen nekk tamit dina dikkam ñaaña xare ñu gën ñu mun jaareem digg ci sa Badara ñu gërëm di wane annoncé ak ngis tamit mooy Abu Jahl ibn Hisham bañ ko ne njëkk ma àgg na wàññeeku mu ne du ma wàññeeku mooy bat laa dem ba ca kàmb ak Badar ga maanaam ba sama sàngara si laj ko sama gënëm yi duufi ñu sama géwél yi tëddal ma ba yaaram yëpp dégg mu bakkala Muhammad dootu daj waaw di jéem a dogal sama njëkk yonent ne ndekete oo du rendi ay gënëmam moom la ñuy rendi ndekete oo duñ ko tëddal xanaa di tam safara moo ko xala tëddal waaye doona tañuy kat ñu am ta di laay wali fiyoon yàlla wala yàlla muhitun aji ndéem la mu dinaa yaama na gën a danañ jëf ko de way sa yaana jàngatal barakatu lay lawum ñeelen seytaanu iblis amaa lawum jëf seen yu bon ya wa qaala tam wax laa xaali bëgër aji not lakum ñeeleen al yawma tey na naa si jiniñ mu way ni naka man jaarun aji musal laa lakum ñeeleen ci kinaana sa seen ci torow melaw Suraaqata ibnu Maalik nga xam ne moom moom wàllu googa mooy leen dem leen man danaa leen sàmmal seen gannaaw ndekete woo iblis rek la wala ma saraati ba ja ba dajee alfiyataani yaari mbooloo naka sa mu jottu xalaat bay ci testëram de mbir mooy aji daw wa qaala tam wax ñii naka man bariwun aji dañ daw min kum ci yéen ñu ngi naka man araada na ma gis maa la taroona lu ngeen gisul de ñu ne naka man axaafu dina ma ragal laa yàlla wala yàlla sa dina xabisa du dugal dama de si yàqoolu ba dana wax al munaafiquuna naafiqee wala si naa ñaanee sa qulubi ma aji nekk la ci xol seen maralum dooli pëstéef xar rawat na kaa walaay jullit ñu ne yii moom diine seen de waaye jullit ñu ne seen diine jëna xamale nag ñu bëggee xarek jàmbaar yi mu ne moom la tawakkal ku dóor na ma laaj ci yàlla te ñu laa nekkee àll xasis mu aju mat na mu ci nguuram de ak yu ma ñu xëy na mu ci ñetti am de wala tara ak ba te gisam nga yow Muhammad yee taw fa ba gën a faa àll si na ñaa ñekk foro wet nañu al malaayikatu malaaka yàlla li bu na danañu dóor wujj moom ay xarkanam seen waa daaram ak gannaaw seen ak bol de weñ bi ñu kon la gis nit mu màgg de ñu naa leen ko soo ko mose naa saa walaale dañ bëgg lakk de zalika loole naa xadaman gi daj dal na ko ay di kum ay loxo seen waa na laag naka yàlla lay sëri sa laamin yéen muy borom ak toon ngi daal di ci jaami de te daal di aali firawna baax seen kan baaxam nañ firawna la wala si naa ñaane min qablihim aji nekk la ci jëkk seen këfër wet nañu de laay ci alquran yàlla ji baax xasamu laaw taala leen yàlla di suna biim ci saw si bakkaat seen de dina baax naka yàlla xaw yun aji dëgër la mu ci nam nam te dina xaw ta di mbugal la mu de zalika loole yàlla laa naka yàlla lam yàqu nekk ci mu xay yaram de aji soppi ñaamatan xéewal anama bu mu xéewal ko ala xaw mi ci nit xataa yu xay yóbbu ba tañu soppi maa daan fi mu nekk ci bopp seen de yàlla bu joxee jaam xéewal bu ko soppi di mukk lu may jaam ba soppi rek bu soppee nag yàlla soppi waana laa naka yàlla sax mën a aji dégg la mu alimu aji xam na mu de baax seen day te daa fi ali firawna kem baa xam nañu firawna la wala si naag ñaañam min qabli mooy nekk lañ jëk njëkk seen te su boobet nañu da rabbim ji alquran borom seen fa alak naam tan alak leen di sunu biir ci saw si bakkaat seen de waa alak naa tan ndaban ala firawna firawna ñooñam de wa kullun képp ci way wee di ñu yonente yi kaanu nekkoon nañu saali mi na di way tooñ de ñu sarra doora dina ko képp ci aji yu kët indi laay fa yàlla ala si na ñoori ñaaña safara wet nañu de boobu ñoom laa yërëm lenu gëm ci ñu de ana ñoom la si na ñoori ñaaña a taxul wante nga minum ci ñoom ne doo leen dimbale doo duñ dimbalante ak yéefari ci yow yow doo dimbalante ak seen yoon su ma yeen ko doon topp ñu bid'a dawul ko leen seen fukki li ma rek ci wépp yoon moom te ñoom laa tax ko ma ragal ci ñu yàlla de ay maa tax taxan moom leen fekk nga leen bilaar bi ci xare parce que topp leen di ci ñoom man xam boobu ñu nekk ci gannaaw seen de nettalul dee nañ dugal de daa la moom booy ñoom yëkkatoo nañu waat de way maa taxaw fa na dem xam nga ñu xaw ñu ci nit xiyaanatan ko leen xiyaanatan surit surit ko leen kon bi ci tamit idée ngeen ci ñoom seen ko leen ala saa yi mu ngay aji moom ñoom de ku ci sànni kóllëre sànni kóllëre nga doxoon sa diggante moom xeem ak ñoom dina laa naka yàlla laa yëngu du mu yoon alxaa ñu ne way wuru ñu de wala tax ci bànn bul jottu xam si na ñaaga kafaroo wet nañu saba koo raw nañu de ay jaar-jaar yi ñu jàppoon ñu daw ca Badar ñu jàppaat leen de buñ toog ne daa ñu raw de ñu ne moom naka ñoom laa yooyu gisoon raw ci ñu yàlla de waaye doo xadu leen law ñeel yëfari mastataatum lu ngeen attan watuñ ci kattan lépp lu julli ñu mën a fàggu ci kattan mooy xam lu waaw njam ak yar ay fas lu ngeen mën ci takku kattan rek def leen ko rek wameni baatul xay li ak ci xeew ay fas pour li bona da ngeen ragal loo di jëm adu walaay mo yàlla ko waa du ko am noonu seen de waa xar naa ñeneen min doon yu ñoom daa taala mënoo mu xamu leen leen laa yàlla yàlla moom dana mu xam leen de bu ma tudd ko lu ngeen sadaxe ñun te ci laa moom dafa def ci sabilaay ci yoonu yàlla yoo ko mu xam fayam ilaykum jëm ci yéen de waa kum yéen laa tuf la mën a def wàññi leen dara de wéen kenn xawoon dem jàngal nañu nag di sëlmi jëm ci mat faj naa jàngal laa jëm ci moom de wata wakkal di leen laa laaj ci yàlla ñu ne naka moom tamit mu waa ji dégg seen i wax alaali mu waa ji xam seen i jëf de way ngi doo dem na mën nañ an yax daawo ka bu ñu wuru jël la fay na xas ka naka aji doy la laa yàlla de woo moom da si moom bi nga xam ne ay ya dëkk dëgëral na mu la dina sëriñ ci njibbalam wa bi moom i na ci way gëm ñi de waa la fa boole na mu bay na xulóom yu diggante xol seen dawaan sax sa doon si dudile la maa fi dafay nekk gis mu jami'an bi mu mboole maa àll sa boole si la bay na xolu bi ñu diggante xol seen de walakin Allah lu fi nekk yàlla Allah fa boole na mu bay na mu diggante seen ñu ne woon na ko moom ak gis maa ji noonu la mu suñu borom ak ci maa ji xale la mu diggante si xam de yaa yoon ak du xam ko laa wàcc na ba si dina Omar jëbbaloo moo mat li ci ñeen mu ko def yàlla ne yaa yoon ak yow yonent yàlla Muhammad xas bu ko aji doy la la laaw yàlla ba mu ne tabaaka ak ña topp nañ la ñu moom ñu ne ñooy gëm yéen mooy Omar ibn Khattab ataaya ajoo waam xanaa na ñu ñëw yonent bi xale yi dëgëral ak moom ñu ne way gëm ñaar kitaal ci xare de na nga moo tax de bi nga xamee nag ne yàlla jox na la lu la doy ci ndimbal dëgëral ci ñu ne nañ xare yéefar yi de ñu yàkkul ñam nekk na min kum ci yéen te soo ne nit saa gën a ñu ñëwee muñ yàq ni boo ñu nët ñu seen ñaar seen ñaar wéyn tàkku ñam nekk na min kum ci yéen ñaar suñ ci yéen yàq ni boo ñu nët am fan jënd yàlla mu gisoo ko te ñoom xaw ma xaw ma la xaw ma ñu jënd ci ñu def alaana léegi xafu fa laa waye fa na yàlla am suñu seen waa alima xam na mu ana fi kum naka aji nekk yéen ci yéen ko ko laaj doole sooy takk ndem nekk na min kum seen yéen suñu seen saa wala suñu budee aji ñun wax dëgg boobu ñoom ñaar xëy na ñaar téeméer de bu njëkk benn ci bu nekk war naa fexe ko téye ko léegi nag waye fa nañ ko benn ci ñaar yi téye ko rek lay fexe de way ñàkk ndem nekk na min kum seen ab bu junne ndax li boobu ñu am fay ñaari junne de ñu ci laay ci ñu gënal yàlla wala yàlla maa faa bir naa aji nekk laa xam ne koy mu ñu de maa kaana nekk nekk maakaana li na bii na dañ njëkkoon lool après wàcc na ci yonent bi de maa ngi nangoon ca Badar na muy juróom-ñaar ci fan yu Makka ndax Abbas bi maa bi mu ko def ci la bopp ba yonent xëy na nag jiitoo saaba yi yeneen lu may def ci ñii Abu Bakar nekk lu ñu doon njaboot rek lañ bu leen sox baal leen te laaj leen lépp ci àll rek ñu jot seen bopp nga bàyyi leen nit ñi lii lii la jox ñu jot nga dimbali ko ci beneen xare Omar nekk ñii ñooy bokk kéefër ñii bu ñu deewoon ku lay sandoo nekk ci àddina ñii reyal ñii jeer rek ku bokk ci sama biir joxal ma rey ku bokk ci biir gaaw ba joxal mu rey ku bokk ci biir suuf dañuy àgg joxal Aliou mu rey ñii jeer rek kii la dafay wax amatu ci àddina yéen sallallahu alayhi wa sallam ne topp naa yoroon Babacar bi ñu daal di leen laaj ak ak njot kenn ku ne joxe ñeent fukki dollar jot boppam lu mooy bañ a àgg ñoom juróom-ñett fukk jërëjëf rek ñu naan war a tëj ci fekk yoonu si si naaw ba ñu ngi jooy mu ne lu ngeen di jooy ñu ne fa mu ne wax la lu ngeen di jooy fu ma mën a jooy ma jooy fu ma mën a jooy ma jooy jooy wala yéen a ngi jooy rek foog ma jooy buur yéen a ko bu mu dugal wàccoon te yow rek ñu nga fexe woon moom la yàlla bëggoon ñu def de buur ne maakaana nekkut nabi ñaar yonant an yakkoona bu nekkat loolu ñen ko asa ay jarjar asa is kanabal ba mu mokkalee fa dara ci suuf de yonant war na laaj ak njot lu mooy mu mokkale yëfam yëpp suñu na da ngeen na mu yéen ci ñu ñaaral dunya ko ñu tam àdduna wala yàlla yi dëgg la mën na mu laaxira te yow la fa laaxira de wala yàlla gis na gis na ko wuram ak ñu ko tay mo ci ko law raa kitaabu ndu gon ko na téere ne la yëpp ko yàlla tabax bopp bu doon nañu ne da nga non lañ leen ay mang la ma ko ko ko jote bi ma xax bu ngeen jàpp ha saawul bu la di mu daa ji mag de ko ko lekk la ñu ma xanam bu la ngeen mang ala lan bi mu halal tay wal bu daa ji tay wa taqulaa ragal leen yàlla dina la naka yàlla ko bu ma ji dëgg bu ñëlé ka jëm ray ma ji la mu leen yaa yàlla du yow yow bi ku waxal ñu doon ci ay nit yu wàcc na ci Abbas ibn Abdul Muttalib bokk nañu laaj yeeg màng te laaj yooyu la muy jotee boppam di ko ne ko def juróom-ñett bi ci ngay fay mu ne xam nga ne ñu bokk ci Bani Haashim ñëpp maa leen di jot te keroog xale ba dara nangu nañ ci man ñaar téeméeri libidoor xanaa da nga ko compter di yonent ne ko ñaar téeméeri libidoor yi nga bëggoon a xañale xeefari yàlla xeefari yi ñuy xeex ak man ma compter la ko déedéet fayal juróom-ñett fukki dollar pour sa bopp pour nabir pour affaire mu ne. yow nag yow nag damaa bëgg a béy ma yalwaan ci makka mu ne ko yalwaan kon ana wurus ba nga suuf ci xajoon bu dugg lu xeer a ñaane woo bul fab li ne ko wurus waa ngi kii la nekk su ma ñu see baax su ma ñu jaasee doom yi ne ko moom mu ne loolu ku la ko wax damaa ko bul fab leen rek te bul fab leen nga ca makka mu ne ko yàlla ma ko wax de mu ne ko jóg yàlla day day muy sama yàlla man itam dal ñëwee sa doon daal daal daal su ma rasulullah bu ne yaa yow nag yow yoonam tubi pour waxal ñu doon ay nit ñu ngeen nekk ci loxo seen mais loolu daal ci jaar jaar suñu yàlla mi laa dem xam na yàlla jox ko di kum ci xol seen xayran ak gëm loolu ci kum dana mu jox leen xayran lu gëm ñoo wax dañoo jàppee seen kum ci yéen de waaye xir tam baal nag ñu ne leen wala yàlla xamul waa ji bay rek mu rëy naa jërëmu gannaaw ko yàlla jox na ko ba mu ne dama yàlla doyaloon jaar na yëpp gis naa ko lam ma doyal ci àllaax rek maa ngi ko yaakaar de way ñu doo dem na mën a ñu te yàlla da ko wuruj de ba xaxaana wuruj nañu laa yàlla min xam bi dee njëkk waaw kana tam jàppandal minum ci ñoom wala yàlla alim maa jo xam na mu mbindeefam ak yi maa jëkkale na ma ci njëkk inna la si ne naka ñaaño amano gëm nañu waxaa jëroo tam gàddaay wa jaaru suñ jaar bi am waa din ci jikkéen waa dina ak bakkan seen fi sabilillah ci yoonu yàlla te ñooy muhaajiroona wala dina ñaaña aaw tàpp nañ yonent ba wa nasaru tañ dimbale ko te ñooy lan saa wulaay te ñooy rek ay baaxum ñenn seen awliya wa baaxum ñooy way doon ñenn ñu rek wala dina ñaaña amono gëm nañu wala muy aajiroo te gàddaay ñu maalakum biir ñaa leen min wala yatin ci doon seen ñu seen dara de mooy gënoo ba jëkk juudu woon de xataa yu aajiroo bel ba tañu gàddaayee wa in sansarukum jëm dimbali ko nañ leen ci diini ci diine faaleykum war na leen na suñu dimbal ilaa ala xaw min ndara ci ñi bay na kum ñooy aji nekk la diggante seen ba bay na moom diggante seen ñi saxul kudra de wala yàlla ba dina ji xam la mu maa tamal gën a ragal jëf ko wala si na ñaaña kafaro wees nañu baax bu ñeen seen awliya wa baax bin way méngoo way doon ñenn lañ de ilaa taxawaloohu ngëm jëfu leen ko takku nekk fitnatun nattu fi la ci suuf wa fasaad nag yàqu kabir ngura ji bëri de mooy doole xeefari ak ñëw doole jullit ñi de wala si na ñaaña amono ko min wa ajiroo tañ ka day wa jaadoo tañ jaar fi sabilillah ci yoonu yàlla wala si naa ñaaña aaw sàpp nañ yonent bi war na solo dañ dimbale ko daay ko ñëwee dëggaay bu mu ñoom al moom ñoom ñoom di way dëggal xam mën a dëggal ak dëggal de loolu ñaan leen maqre suñu baaw de ko na war sa kañu mu daaji tedd te mooy aljanna de wala si na ñaaña aamano gëm nañu min baadu ca gannaaw ñooñ de waa yoroo tañ gàttaay wa jaaru tañ jaar maa ko maa ndëg yéen foofu daay ko ñëwee dëggaay min ku ma aji nekk nañ ci mbooloo seen de foofu la dara xamee waroo mi jege ñaare baaxum ñene seen awlaa ñoo gën a yeli waatan ci ñene de kooku moo ko di laaya doon te jiwéewam léegi diggante mu aji naa doon saar kitaabi laa ci téereb yàlla bi de inna laa nag yàlla alimun aji xam na mu bi kulli seen ci lépp lépp nekk na ca ak mbir